élection. oui jaru ko. y une rencontre entre Sonko xalifa Sall PUR et PDS waa ou xam nga bon euh, xam nga nag euh, moo damay wax li nga li nga xamante ni man xam naa ko ci sur cette affaire là amalgame bi Omar te je vais te parler sincèrement franchement. Mm. Mm. yàlla xam na ko. Mm. je vais te parler franchement. Euh, c'est que y une stratégie à quatre. parce que yaa a des partis qui se sont vus ne ñoom dañu bëgg a def sous coalition doog woo ñeneen ñi. kan ak kan. mooy parti yu ñu cité. PDS Pastef non non non non dama bëgg moo wax. dama ni Pastef parti yi nga cité laay wax. daje nañ. dama moo tax may la je parce que xam nga mbir mi jarul il faut être transparent man man wax rek li nga xamante ni mooy. te loolu am na y a une rencontre bu am. entre qui entre le PDS. le, le PASTEF le PASTEF le PUR le PUR. et taxawu Dakar Dakar exactement. ñu ne ñoom dañu bëgg def un bloc à quatre bu ñu defee seen bloc à quatre ba pare après ñu ñu def communiqué ne bloc à quatre bi def na coalition autour des quatre mais ñu ngi woo ñeneen ñi ñu ñëw rejoindre le bloc yaa ngi dégg. Mhm. mais mais loolu bu fekkee dafa am mais yan critère la ñuy teg. ne Thierno Alassane Sall du ci bokk ci kaat yi ci saa ci kaat yi yan critère la ñu war a teg ne Malick Gakou du bokk yan critère la ñu war a teg ne Bougane Gueye Dany du bokk yan critère la ñuy teg ne ne Thierno Bocoum du ci bokk yan critère la ñuy teg pour keneen nag opposition bi du ci bokk ça pose problème mais est-ce que du ñoom dañu bëgg nekk le noyau peut-être non xam nga euh, euh, dooro woo ko waxee xam nga damay wax les autres pour pour xam nga damay wax moom moo tax ñu taxawal cette coalition xam nga écarté que bu explosé ci avion déglu ma wax la benn affaire fii kenn écarté wul kenn buñ de avion bi naaw bombe explosé ci avion bi ka comme ku jéem a écarté kenn yow yaa ya ya yaa yow yow yaa ngi nelaw écarté sa bopp quoi parce que fii ku fi yaakaar ne moo tax ma la sànq politique parfum la Ousmane Sonko en 2017 35 000 voix la def. Mhm. mu dem élection deux ans après def def def def 500 000 voix 700 000 voix 15 pour cent ñu koy ndabon mu nekk un jeune de notre génération prouver que la jeunesse politique sénégalaise war nañ mën a war nañ mën a peser ba am résultat yi résultat yi ñëpp ci kontaan. ñëpp ko ndamoo mais dama la bëgg wax ne la cest di dire que xeeñtu ko rek noppi jàpp sa njàmbur parce que personne ne peut la l'avenir kenn xamul demee kan mooy régler sa problème parce que fii am nañu fi am ay problème on s'est battu man def do combien de fois la ñu war tourner pour xeex a Khalifa Sall Malick Gakou fa leen laan yendu tribunal vingt vingt cinq jours chaque jour matin ba guddi dix la fay jóge dem këram mais aujourd'hui le problème qui se pose mooy demee peut-être am na lenn loo xam ne ñun bëgg nañ ko pour que ñoom ñu mën a participer aux élections présidentielles mooy Khalifa Sall mooy Karim Wade. mais xam nga ne am na am na mais ma ne ma ne xam ne am na communiqué bu ñu defoon pour génn ko xam nga loolu. noo communiqué bi amul. j'ai dit il y un communiqué. oui qui a été produit. bu ñu bëggoon a def bu ñu bëggoon a génne pour génne ko. non yow gis nga communiqué bi. non dafa nekk rek. oh ne lay wax dama ne. on parle franchement de Oumar. waaw dama ne xam na ne on parle franchement. waaw mais xam lépp lu ma xam amul kenn ku gis communiqué mais communiqué ko bindoon nañ ko. ah dafa am kenn ku signéwul. waaw ku signéwul. Sonko la. <laughs> Ousmane moo signéwul. donc dans le communiqué après naa euh, ñëw. dans le communiqué ñenn ñoo. non d'accord d'accord. communiqué entre Khalifa Sall. entre Pire le PDS et tant d'autres. waaw mais li yàlla dogal. quelle la raison ban raison moom moo tax. mais xaar bu pare dama li yàlla dogal ñoom ñooy kii. li yàlla dogal tey ci situation politique Sénégal. comme na nga ñoo <laughs> yàlla dogal ci politique Sénégal fi mu jamono ñu toll nii. Mhm. coalition opposition mën naa dem sans Ousmane Sonko dama lay laaj quoi bu ñu bu ñu xoolee li yàlla dogal. non dama lay non non. ndax mën nañ def coalition de l'opposition sans Ousmane Sonko. loolu dama lay. mais waxuma. non bokkuñu parti. waxu waxu mais dama ne li yàlla dogal pour le moment ñu demoon élection présidentielle am un deuxième qui va faire vingt pour cent le troisième am quinze pour cent nekk fi nekk dans l'opposition mais mënuñu def. bu ñu la déggee mënuñu def peut-être une coalition une coalition boo xamante euh, ni sans Ousmane Sonko Ousmane Sonko mais également Malick validé wul validé wu la démarche également Malick ah? euh, euh, démarche bi nga xamante dégg ngeen ko wala yow confirmé nga ko dès le départ nee nga peut-être amul benn communiqué officiel mais confirmé nga ne que euh, quatre partis politiques yooyu ñi ngi waxtaan pour mettre en place une coalition être même le noyau de cette coalition te ñeneen ñu bokk ci yow loolu ngeen di dénoncer waaw mais non dénoncer wuñ ko parce que loolu ñuy def noonu waaw rafetlu wu leen Malick Gakou mu ko doon def ak Pape Diop ak keneen ak keneen ñu a ngi a quinze parties Abdoul euh, keneen ak keneen ñu ngi waxtaan maanaam waxtaan amul problème waxtaan ci ay parti loolu y' a y' aucun problème mais dama ni bu ñu demee ba phase de finalisation sous communiqué foofu la problème bi nekk attention parce que mën nga waxtaan lu ne mais dans la déclaration officielle dans la déclaration officielle mhm. maanaam boo boo bindee rek tu t'engages te boo nee ñun ñii ñoo ànd mais il faut nga expliquer nit ñi pourquoi man man maa liggéey nekk opposition nekk député opposition bi combat yi fi opposition bi yëpp def ma ànd ko ak opposition bi def ko pour ban critère lañ may tegal man ne ma man nekkuma dans l'opposition alors loolu leex na alors Dame. Euh, ah? coalition boo xamante ne dégg nañu ko man man man man ma war ko nangu man ma war ko nangu bon du def comme ni moo mon ami Thierno Bocoum def parce que Euh, euh, dafa bind lettre wax baat Barthélemy Diaz feeru ko fële euh, ne ko l'essentiel oh, vers l'essentiel man xaw ma luy vers l'essentiel donc dinañ dinañ dinañ ñëwaat ñëpp de façon moi je pense may ma clôture foofu li gën mooy aujourd'hui mhm. liñ leen laaj jafewul parce que liñ ñu leen laaj mooy ay leaders yu toog benn ci benn hôtel ne ñun ñoo ànd loolu rek la leen laaj parce que man les candidatures ça va se dessiner au niveau des bases li leen laaj rek mooy leen yomb na trop ah ñun ñii ñoo ànd buñ buñ ñu ko defalee ñi nga xam ne dañoo nekk dans la base ñi nekk ci base yi dinañ jéem a dem dans les base xool nan la ñuy mën a amee ay accord pour faire une unique de l' opposition qui la seule alternative nag une liste unique de l' opposition au local pour nu permettre de changer l'ordre établi alors loolu leer na Malick euh, Dame est-ce que lii indul peut-être une division de l'opposition déjà euh, ay kaddu ñi ngi jokk dégg nañu Thierno Bocoum euh, bi wax ne peut-être coalition calculée dégg nañu Mamadou Lamine Massaly bu jàpp ne quatre hommes politiques ñoo bëgg a jël en otage ñi nga xamante ne ñoo fare ci ku jëkk politique gi Barthélémy Diaz qui répond que nañu dem vers l'essentiel une division déjà ci ci ci ku gi est-ce que loolu arrange na pour ces élections locales qui sont ou la présidentielle waaw euh, Fatou Abdou d' man damay rappeler c' est toujours important de le rappeler parce que Sénégal tamit euh, comme ni ko waxee confusion bi bëri na euh, ku nekk yaa ngi fecc jëmale boor bi nga bëgg kon nag man toujours moo tax may fàttali ne man du ma politicien bokkuma benn parti du ma candidat ci local yi du ma ci lenn mais nag acteur acteur laa ci Sénégal dans le dans, le syndicalisme comme au niveau de euh, la société civile donc li xew ci sama réew dafa ma intéressé. mais damay am naa benn question bu ndaw. qu'est-ce qui fait courir daam. daam man boo ko élection lu xew daam parce que leader ah. d'opinion la. ba pare géewul nga dëkk la moo tax doo dem élection la un leader d'opinion li xew ci réew mi da laa war a intéressé. loolu xam naa dina ci ñëw sax mais par rapport. ah loolu en tant que leader d'opinion. bien sûr Sénégal ñaar même bu dul woon sax en tant que leader d'opinion ñaar yi daf ñu intéressé ñun. Sénégalais dafa bëgg sport Sénégal dafa bëgg politique. gis nga ñi nga xam ne da ngay jàpp ni sax euh, comme ni ko certains di waxee ñoom xamuñu lu xew. boo duggoon ak ñoom ci politique lay ñu rey la moo tax il faut que ñun ñuy am humilité.